sont justement des ambassadeurs de la paix et de la religion merci Baye Sane dañuy dugg dalal la ci biir actualité on le fera sans transition bien sûr on parlera des élections locales le sang a coulé à Ziguinchor Ousmane Sonko attaqué par des nervis certains diraient que c'est de la provocation qu'il a fait alors fii dëkk bi nu mu tudd Dakar Sénégal Sénégal ku moom Sénégal sénégalais yi xanaa ok donc ku nekk am nga droit de circulation waaw. daa am lu xam lu xam ni dafa commencé di am ci dëkk bi te baaxut. moo la lan. Fouta Macky Sall moo ko moom. Casamance Ousmane Sonko moo ko moom. Euh, on sait où lu doy waar la. jamonoy Ablaye Wade daaw ñu dégg loolu. Hmm. lu tax lu tax lu tax ñu koy dégg ci jamono bi. parce que daa am ko am doole jéng soo jéngee ci mbooloo na ña ci des ca mbooloo ma dañuy ut tamit fu ñu wéeru lii fi ne mais mun nañ ko jéggi parce que Sénégal moom mu neex leen mu naqari leen kenn mënu koo salfaañe lan moo xew Casamance waa quoi yenn foofu ñoo invité Ousmane sonk ci information yi ñu am invité ko recevoir que war a waxtaan ak moom ca ndaje ba. ñooñu seen bërëb ba ñu doon defee ndaje ba malheureusement dafa tombe mu ñàkk sori mel ni lu dend kër way juru duuduka mhm. mu ngi mel ni rek tey nga ne seen TV la ñuy defee ndaje ñu ne ah gi à côté kat fa la diw dëkk waa léegi est-ce loolu raison la pour dal si kaw nit après ñenn ñi dinañu maanu leen xamu leen nu mu demee fekkewu leen mhm. ñu ne ñun nag Sénégal dafa toll fi nga xam ne dañaa wax li nga xam ni moo fi nekk. ñaari parti lay wax. parti Doudou Ka xam la ne dafa mel ni dañ doon taafantoo réunion ba. pour attaquer kër Doudou Ka nan la Ousmane Sonko ay nitam di demee Casamance pour attaque kër Doudou Ka loolu xel mën na koo dégg. après xanaa bu ak Sénégalais sax ñu wax leen lu mën a yanu maanaa. bu ñu ko defee de c'est petit. les mêmes personnes qui ont attaqué qui avaient attaqué Guy Marius Sagna la ñu jiiñ tuuma ne ñooy defaat même chose bi ba gii Marius di dem Casamance. waa léegi kon foofu daal chasse gardée dañ ko war a interdire ay nit am na ñu fa am accès Bougane dégg nañ ko bu yàggul muy wax ne dañ ko fa c'était menaçant mu dem fa kon daal kenn amul droit teg foofu tànk loolu moo la lan te président am accès foofu war a dem Seydou loolu moo la lan Baye Sane après est-ce que ñoom foogoon ni que euh, ci jamono ji negam politique gi dafa jaxasoo ba nga xam ni ku jug rek tey jii bu fekkoon ni nit wala waaye takk der yi wala waa APR bu ñu romboon buntu këru euh, Sonko bi nekk fi te kër góor gi dañuy naan ah on se méfie ils se prennent en ennemi et c'est ça peut être très normal que tout de suite mu am lu xaw jaxase seen diggante loolu la ñu wax mais dafa am dafa am benn affaire bu am nag dinañ ko wax fii kamu neex ak kamu neexul. il faut que ñu bàyyi système de terreur. c'est vrai mhm. ça c'est vrai. dañ ko gis 2010 2011 2012 ñun ñëpp fii la ñu fekk. APR noo ko wax fii da ngeen a violent. très bien. on vous aime trop parce que vous êtes nos compatriotes mais da ngeen a xam nga loo loo xam nga tey jii nii la question est bien. oui uh-huh. ba leen waxee ci naka. ci li ñu gis. très ba leen gisee ngeen yoon ay jaas. Uh-huh. yoon ay arme di dagal nit ñi naan dem leen ngeen def leen noonu. ba ko gisee fekk ka xam ko dégg leen. dañuy ah. xam ni lii la malheureusement ca jamono bañ cay toll ci opposition ba. Uh-huh. attitude boobu dafa feeñoon. mais on l'avait pas trop senti parce que boobu ñu ngi am. problème ak Ablaye Wade. ñoo àndoon ñëpp nekkoon ci ci benn sens. aujourd'hui loolu dafa feeñ mooy que tey on va vers des locales la terreur pour tout le monde yéen ngeen jël sunu administration bloqué ko jël ñëpp def leen ay politiciens dëkk bi taxaw taxi est-ce que xam ngeen benn affaire seetlu ngeen leen ci dëkk bi. Mm-hmm. vous pouvez compter le nombre de taxis qui passent devant vous. Mm -hmm. au temps de Wade vous ne pouviez pas. Mm-hmm. parce que dañ dañu bëri woon flux bi dafa amoon doole. foo tourner ñu ngi daw tawatuñu lu bëri pourquoi parce que client te te tey la population sénégalaise gën a yokk tey la marché bi gën a yaatu mais tey la marché bi gën a tëju pourquoi parce que vous avez créé un déséquilibre stupide très bien stupide boo xam ne kenn xamul lu mu doon ci administration boo xam ne yow mii madame Touré buñ la nomee fenn boo amul base politique ak ba ca topp boo xefee doo fa toog loolu moo jur li xew ni fi mu ne nii duudu ka mhm. yore AIBD mhm. mu leer ko ni bu ñàkkee Casamance dañ koy wàcc da koy jaral lii. mais alors est bu naree dem ba dugg professeur ci administration yi est-ce que du gën a yàq suñu jikko yi parce que on parle justement de notre société et on parle de defaraat suñu jikko est-ce que faut justement appâter euh, les gens avec euh, la politique en leur mettant des conditions de d'avoir des partis ba de base solide ndax ñoo ngi koy gis Mame Mbaye Niang mi ngi bëgg Dakar euh, kii di Aly Ngouille Ndiaye bëgg na Dakar kii di Abdoulaye Diouf Sarr bëgg na Dakar Mame il attend de gagner les locales de Dakar est-ce que aujourd'hui parce que ceci confirme justement la thèse de Pa Assane comme quoi que il faut nga am foo teg tànk ngir mën a xettali président Macky Sall ak waa APR ëllëg bu ko defee ñu jox la léegi nag euh, poste ministériel bu xaw élevé est-ce qu'aujourd'hui ça ne devient pas justement la politique peut se faire mais respectons nos, nos administrations pour que les, les institutions soient respectées waaw loolu de lu am la mais xam nga lii yëpp Macky Sall mooy perte mooy perte de mooy perte parce que fii ba vingt ans. cent ans lu Sénégal di retenir ci moom. kenn du wax ne eh, mu ngi doon ter tëj nag diw tëj na diw mooy lu mu réaliser lu mu defar ci réew mi est-ce que fexe na ba askan bi jógee ci ndool est-ce que fexe na ba école bi gën a taxaw yooyu la eh, loo xam ne moom moo gën a am solo li ci des yëpp mu def benn mandat mu def ñaari mandat wala mu def cent mandat loolu amul benn sens mais su fekkee moom nag nangu na jël ay nit yoo xam ne eh, vraiment du ñu liggéey mais affaire am la mais xam naa askan bi dina ci def mais man li ma bëggoon yokk rek mooy euh, nañu bàyyi di yee fitna. très bien nit yi dañoo sonn ni nga ko waxee léegi te bu ñu continuer nii ñi am ci réew mi ñoom ñooy gën a sonn parce que bu amee affrontement ci dëkk bi ñi am ba pare ñi amul dara amul lu ñu ñàkk. exact mais ñi am ñooy ñàkk. Mhm. kon nañu bàyyi di yee fitna. très bien fitna baaxul. Eh, eh, am na fenn fu mu bëgg a tëjee. très bien mooy que Ousmane Sonko tey. dafa décider def caravane ci dëkk ba yàlla na si yàlla def jàmm. amiin waaye. ñoom nee nañu waajal nañ seen bopp ku leen di song nag na nga waajal sa bopp te yàlla bu waajalante am. yàlla bu affrontement am yàlla na fa jàmm am. amiin ñuy araftu di wax président APR ki ko jiite. du président Sénégal président Sénégal moom moom la mais malheureusement moom moo jiite parti ba na na changé style. d'un change style on a besoin d'un peu plus de de de grâce d'élégance. jàmm ko de paix de paix. yow ñun wuy ma ma yow wuy ma dama kaa tàccu ni nii yow xam ngeen ñu jàmm amatuñu lu lekk lu naan mais may la mu noyyi. mais boo leen ci bëggee jël gàddu ay jaasi gàddu ay nervi fuuta ngeen dem dóore fu ngeen dem dóore ba fi nit ñi jogaate di ngeen am problème. très bien Aïcha on parlera de l'ouverture des frontières la France <laughs> ouvre ses portes au